coowal garab yu bon yi la faux waa duñ ko leeral moom ma ca jaaxal termine yéene kaay ne El Hadji Diouf ñama àndal day waaw daal dina ñuy xam le ne ñii nga xam ne ñoom ñoo leen sosal ak yàq deru chinois yi day leen topp laa la wax fa mbaxa ne nekke ah waaw bos boobu di ne El Hadji day mooy avocat ñi nga xam ne ñoom leen tuumal laa la wax nee na gis nga coowal produits médicaux yi la ñu jàpp ca waaw waaw El Hadji nee na xeex la boo xam ne bu nar la nar a nekk ndax ay punkal di ay jéngi ci boppam ñoom ñoo ko séq laa la wax tribunal ba dana sens ta dana metti la ilaha illallah maître El a Diouf ne gis nga ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam kon cuune la may wax mu naan crime lan moo fii nuroog rey nit quel crime critique yéene kaa ne coow loolee xam ne moom lañ dipee nag foo médicament yi day yu bon yo waaw avocat u chinois yi ah tuumaal nañ day pharmacie nationale d'approvisionnement mar d' Italie waaw waaw ñoom ñoom daal liggéey ba nuppi kon seetal nag seenu client ba ñu sit wi daal di xam le ne direction de la pharmacie ci boppam mais moo signé kayit gii wane ne seen client bi lée deful dara avocat u chinois yi yemuñ ca ndaxte nee nañu gis nga coow lii ngay gis nii waaw tongal la ngir jéem a écarter éliminer kon ab concurrent koo xam ne wuju la ca ma enquête yéene kaa ne coowal médicament yooyee garab ya njàpp ca paduwaa waaw tuuma ci kaw tuuma la de tuuma ci kaw tuuma la de waaw nee na mais ñoom santaane kon enquête ba avocat wu ñi ñu chinois day nee nañu ay médicament ci boppam kon nekk ci woon professeur ah kay il day ko ci coowal médicament yi nga xam ni kon santaane wuñ ko ñu jaay Sénégal gi de waaye yow maître El ak ñama àndal am na luñ fàtte wax ci seen conférence de presse bi yéene kay Cheikh Mbacke gisee gi ne dama ne maître ak ñama àndal waaw xanaa dañoo fàtte soluté ak comprimé yi ak seeni ci dépôt Padois googe maître El Hadji Diouf ak ñamu àndal waaw xanaa dañoo fàtte kon informaticien ba ak histoire mise en forme ba ginnaaw bañ na yaay booyo erreur dafa am kon ci traduction ba ca wàllum étiquette ya soppi lañ ca bind yooyu bind ca lu a liir xanaa dañ koo fàtte yéene kaay Cheikh Mbacke gis nga ca parce que libération nee na dama ne xanaa maître El dañoo fàtte ne gaa ñi lée leen toppee mbirum wuyu association de malfaiteurs la ilaha illallah waaye ñuy dem retour de parquet la ñu am di xanaa ñoom maître El Hadji Diouf dañoo fàtte loolee ñoom maître El Hadji Diouf xanaa dañoo fàtte waa joojee ñu naan Njaay ak waa ñu naan Daabo nga xam ne ñoom ñoo doon joxe kon alcool ba ardi tali waaye yow ñoom maître El Hadji Diouf dañoo fàtte société Dipro Pharma Biomédique bi nga xam ne moo doon séddale ak a distribué te ci greffe yi xamuñu ko inconnu la moom société boobu réew mi la santé direct news ne gis nga médicament yu bon yi nga xam ne dañu koo jàpp waaw ministre de la santé day Abdoulaye Diouf day théâtre nii rek soo la te xel nag daa ci Abdoulaye Diouf mi rek ak garab yu bon yi mar di tali waaw parce que Abdoulaye ci boppam xam le ne képp koo xam ne tax nga ca mbir moo mais danañu la daan waaye mbirum faux médicament yooyee ñaata yoon la fi te nga xam ni kon dañ leen cey tudd yëpp dañ naan may dem seen yoon kaawuri jàlloo ngi ni lé a jàpp laa la wax direction de la pharmacie googee lañ cay tudd chaque jour te Abdoulaye Diouf Sarr du yëkkati daan mukk lal ko ci seen ndodd laa la wax waaye est-ce que yi ñoom ñoo jot a jaar du nuroo rek ak chinois yi encore moo ma ca jaaxal la jaaxal nit ñi nag fi nekk ni ne mooy bennoo bokk yaakaar ci tas la jëm de waaw waaw waaw ku ca nekk yaa nga bëgg a jiite looloo di tas demal ca diwaanu Louga gële Moustapha Diop fa ne Mamour Diallo Aminata Mbengue Ndiaye Omar bun Xataab Sila DG wu Dakar Dem Dikk demal ca diwaanu Linguère Aly Ngouille Ndiaye Aly Sala Diop Samba Ndiobène Ka demal ca Thiès ge nga xam ne Idrissa Seck tegeetu fa lu bari waaw léegi ay stratégie rek lay tege moom Sow indi Yankhoba Diattara waaye Aliou Sarr nooto jobaa sanga ba ak Habib Niang Abdoulaye ak Habib Kane demal ca Mbour Omar Youm ak Sophie Gladima Sibé ngay rayante demal ca Kaolack gële Mariama Sarr ak jëkkër ja Mohamed Ndiaye Rahma def nañ seen buroog Sow waaye Diène Farba Sarr nga de ma Sambu dañuy rayante demal ca Kolda gëlé Mame Boye Diao Abdoulaye Bibi Baldé dañuy rayante boo ca toftalee nag Ibrahima Diawo Ndo Bari ak Mamadou Wuri Baylo Diallo waaw yéeni kaay dee média gi ne boo bëggee dégg dëgg daal waaw Benno Bokk Yaakaaru Macky Sall bi lé ca tas la jëm 24 heures yéeni kaay ne élection locale yi ci Ndakaaru njaajal jóob waaw ay waay ci kan lañ mën a yaakaar ngir commencé gént nag di rêvé rayante Benno waaye dañu fee amul ku charisme dëgër kët neex a xool fii ñen ñoo fi ne ay Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba Moussa Sy Seydou Gueye Ndeye Sali Diop Maymouna Xuma te taxawaayu Barthélémy Dias gu bees gi la mooy nañ leen delloo Khalifa Sall yëfam laa la wax dox mbokk bi Barthélémy Dias tàmbali waaw mooy lu njëkk li de ci jaar jaaru candidat bi nga xam ne Ndakaaru la fii la sosoo fii lañ ko defare te fii la mage made in Dakar sur quotidien xam nga élection locale Khalifa Sall ay Amadou waaw ñoom instant bi dañoo kale kak Dakar daal boo sàgganee ci loxol ba léegi la jëm de ñi nga xam ne mosuñoo nekk maire xamuñu ko ah waaw waaw Zano Abdoulaye Diouf Sarr yeeg Barthélémy Diaz Mamadou Sy Albert waaw nee na Barthélémy Diaz mi lée mën naa nekk kii remplacer Khalifa Sall di dauphin l'observateur ne Macky Sall day waaw daa soppi doxalin de Macky Sall bu bees tax yorinam ci wàllum nguur gi la mais tam yorinam ci wàllum politique bi coowal Sonko Adji Sarr gi rombee ba léegi ni lée Macky soppi na doxalin instant bi daa xulli ba tamit di xool waaye ci wàllum politique am tamit day parti bi daa war a yëngu de affaire daa war yëngu de last élection locale yi dialogue ba troisième mandat waaw Val Joojo Njaay day yekk na lu mel ni xamee politiciens yi ñëw parce que Val Joojo Njaay nee na gis nga gis-gis weesuwul seen càccu bakkan yi laa wax waaw waru ñoo caaxaane di caxa-caxatee calendrier élection locale yi meeting u Benno Bokk Yaakaar yi moom ñàkkub ñor la ñàkkub ñorug politique njiitu réew mi nag li mu a moo leen jàpp tax ñu di ñu saaga rek di ñu xaw lan yoo xam ne day seen wàllum liggéey yooyee impôt bi président di leen am lu mu leen di jégal ca mbir ma président yemu ca kocère kii Moussa Sow jiite waaw juróom-ñaari million la koy dimbalee weer wu dee wu ne ngir ñu ciy régler seen jafe-jafe laa la wax ak ministre directeur yi nga xam ne tam président daf leen di jàppale Omar Sow mooy wax du samay kàddu de critique yéene kaay ne non Touba moom bu leen fa sax sonn yéen waa APR doo ko gagné élection locale yi dama ne la Macky Sall Touba mooy bërëb boo xam ne mënu koo jël box fabli ne série télévisée di théâtre yi lée Alima Gadji ak Myriam Ndiokh waaw daal dinañuy wax jaanama yi nga xam ne kon moom la ñuy dund dund gi mi lée maîtresse d'un homme marié waaw nee na aar bi bu ma ci gisulee sama bopp daal bu ma dem toog Myriam aar ak ndox quotidien yéene kaa ne cay Fuuta ak weeru koor gi lée tàng jër la def laa la wax waa Fuuta gépp a ngi riir wutal si Ndakaaru njaajël jóob dama ne leen ndaw yi ci boppam ñooy xëccoo place yi ci bus yi di ko xëccoog mag ña bàyyi ak mairie mar de tali waaw waaw cay Fuuta tampi <laughs> waaye Fuuta nag ak lu mu tampi tampi tampi tampi tampi tampi tampi tampi pétrole bee ko gën a tampi fop moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek